mu mel ne rek kàddu yi ba tey ñu ngi koy sof di ko jottaliwaat rek ci kooku nga xam ne mooy Omar Sall ci waxam yu juunu yu safaano yooyu nga xam ne mi ngi koy yëkkati di ko wax te dara du ca dëgg wala la ca ëpp du dëgg te it mu réeral ci ay nit yu baree baree bari ba tax na tamit mu bëgg cee jëlaat ñu baree bari ñoo xam ne dana leen ci réeral xam naa loolu sax andil na ko ak jaxasoo ba xamatul dëgg-dëgg naka lay doxee ndax ak dëgg moom ku ci nekk da nga xam ne ci dëgg nga nekk waaye ku ne ci caaxaan bëgg a nax nit ña danga nga ko xam fi ñu duggee rek tey dafa laal ci wàllu tasawuf loo xam ne koo xamul tasawuf dëgg mën ngaa jàpp ne xam na ko fekk sore na ak moom ki nga xam ne tamit mësu te it amoon na ci sikk sàkka su dégloo xam ja day jàpp ne kon tasawuf wala xeet yi yam ci jot a tudd kon amul ay caaxaan la waaye ku dégg ni mu ko waxee rek te xam dara ci tasawuf da xam ne mën naa am soobu woon na ko waaye nag daa àggul ndax nag booy soobu ak dex wala géej na fekk nga man ndox soo mënul ndox nanga am gaal koo xam ne gu dëgër la man laa jàllale ànd ko mool loolu nag soo ko amul da ngay lab xëy na soobu woon na daa bëggoon a lab fexe ba mucc génn te it amutoon gaal amutoon koo xam ne mën na koo jàllale moo wax yoo xamante ne ku dégg wax ja xam ne dara du ca dëgg muy jaxase gi mu jaxase ci diggante Cheikh Ibrahima Fall ak Cheikhul xadim xam ngeen ne dégg ngeen ci biiri kàddoom mu ne Cheikh Ibrahima Fall moo rawoon ci wàllu jàng Serigne Touba xam ngeen ne wax jooju ñëpp xam nañ ne dara du ci dëgg te it li gën a yéeme mooy magum jëmm moo xam ne day wax te bu wax ja daanu ñëpp xam ne kii li mu doon wax kat dara du ci dëgg loolu moo ko dal ku ne xam na ne Cheikh Ibrahima Fall demal nga jàng biografiam bu la neexee nga jàngee ko ci arab wala ci français yëpp am na. ku ne xam na ne bi mu jaayante ak cheikhul xadim ngir mu àggale ko ca boroomam subhaanahu wa taala ba mu ñëwee am na ay téere yoo xam ne ci sariatul islaami bii ñu nekk la daf koo digal mu dem jàngi ko waaw bu fekkoonte ne Serigne Touba jënkoon ba xam ko naka la ko koy digalee waaw naka la ab doo nga naan sëriñam demal jàngi fekkoonte ne kon moo nekkoon kon lu wax jooju xamoo ko xamoo ci dara te loolu xam nga ne loo bu Cheikh Ibrahima waxal nga ko loo xamante ni tooñ nga ko tooñ goo xam ne jéggi na dayo ndax moom Serigne Touba radiyallahu taala anhu da koo yëmalewut ak darara ndax moo ko wan boroomam subhanahu wa taala ñaareel ba ci li nga wax ci lu dëgg muy fanaaw fanaaw boobu da nga cee jaxase ci li nga ko jaxase réeral nga ci ñu baree bari ndax da ngaa wax ne dafa dem ba ci fanaaw mënatuñ ko wàcce fi nga njëkkee wax lu dëgg mooy fanaaw kenn du fa def sax fa te nee nga dafaa sax mënut a wàcc ñu ne ko waaw desal foofu kon bàyyi julli danaa la ci indil ay leeral lan mooy fanaaw ba pare ndax boo waxee fanaaw de am na ñoo xam ne xamuñu lan mooy fanaaw. te fanaa u mooy jeex ci lépp loo xam ne bokkut ak yàlla subhanahu wa taala dagg say bànneex di def ndigalul yàlla subhanahu wa taala di wakiirlu ci borom bi subhanahu wa taala xam ne lépp ci yàlla lay bàyyi ko say bànneex day dagg ba jeex tàkk amut luy nekk ci loxoy mbindeef yi loo xam ne yow dana la soxlaal danga ko dana doon sa yitte kon moom foofu la nekkoon nekkoon koo xamante nii te fanaaw bokk na ci fa ngay àgg da mel ni ki xale boo xam ne dafa nekk ci aji ka koy nàmpal wala xale boo xam dafa juddu bañ teg ko ci fa mu tëdd nga xam ne du ne nii ngeen may def wala naa ngeen may def waaye doon koo xam ne doon namu dara lu dul jëmmi borom bi subhaanahu wa taala amoo benn aajo ci kenn ku dul yàlla subhaanahu wa taala lépp lu mën a doon jëfi borom bi subhaanahu wa taala moom nga cay gis suñu borom ngay namm ci lu feeñ ak ci lu nëbbu bëgg googu nga bëgg suñu borom ak xam ki nga ko xam moo lay yóbbu ci say cër day dal nga doon koo xam ne ku dal xol ngay doon ku yaatu dënn ku leer xar kanam doon koo xamante ne ni sa biir dafay regg ci doylu ci lépp lu mën a doon loo xam ne bokkut ak borom bi subhaanahu wa taala saw làmmiñ doo ci tarxiis doo ci wax lu dul dëgg doo ci yokkat da ngay doon koo xam ne sak leer day àgg fépp fanaaw moom nag dafa am ay xeet yu baree bari pour ma xamal la ne li nga wax du dëgg mooy fanaaw kenn du fa def sax fa jëlal li exemple ma di la jox boo demee ci alquran soxna buur ba ñi ne saliqa la tudd ka nga xam ne moo doon sàkku yonante yàlla yusufa alayhi salaam ku ne xam ne ne àggoon na ci fanaaw ndax keroog ba nga xamante ne gis na yuusufa ndax dafa am ñaari fanaaw yoo xam ne dafa am te loolu lépp tamit mu doon loo xam ne nit ki da ko war a xam bu baax ndax dafa am al fanaaul xawfu wal euh, fanaa wal fanaaul xubb am na fanaaw boo xam ne pour ak ragal lay doon am na goo xam ne ak soppalam gis nga moom saliqa bi mu àggee ci fanaaw nga xam ne mi ngi jàkkaarloo saliqa moom mi ngi jàkkaarloo yuusufa moom saliqa nga xam ne yëg gi nga xamante ne jeex na tàkk ci fanaaw ci xobbu moo tax mu def ba def loo xamante ne wuru ko woon a def ndax dem na bay sàkku koo xam ne boroom këram a ko yoroon ci biir lam doon def lépp téyetu ko parce que dafa jeexoon tàkk tàkk tàkk ci ak bëgg waaye dem na ba weesu martabam fanaaw xoolal keroog jigéen ña ba leen saliqaa dajalee indi leen ci biir kër ga dalal leen ba wax yusufa ne koo génnal dem ci ñoom yusufa ne génn fala maara aynahu akbar noo bañ ko gisee dañ ko màggal ñoom ñëpp ñuy wax naan xaasa lillah waaw kii kan la kii de xanaa du nit ñu ne ah du nit kay ñu ne malaaka la ñu ne bu dee malaakaat malaaka bu tedd la ñuy tiit bay dagg seen loxo yi keroog ñoom dañoo àgg ci martaba fanaaw cofeel gi ñu àgg nga xam ne yëgatuñ dara lu ak bëgg moo leen yóbbu ci ñuy dagg seen loxo ya ba xamatul lañ doon def waaw ndax ñoom dañoo konne di dagg seen loxo yi rek di dem bis bu ñu xëyee di ko dagg keroog ci fanaaw lañ toloon mais weesu nañ ko salixa waxtu wa soxna yi di dagge seen loxo ya ndax moom lo dagg na loxoom déedéet daggul loxoom mukk lu tax keroog moom génn ci fanaaw mi ngi ci baqaaw keroog génn ci fanaaw mi ngi ci baqaaw moo tax ñoom bañ àggee ci fanaaw bay dagg seen loxo yaat moom raw na leen parce que génn na fa kon wanee leen la fanaaw kenn du ko def sax fa kon li ngay wax tamit nga seetluwaat ko baax xam ne waxoog ñoo xam ne ay dof lañ li ngay wax ñun xam nañ ci xam gu leer nañ ñaareel ba mooy euh, fanaaw ci boppam fanaa boobu ci boppam dafa am ay façon fanaa yu bëree bëri yoo xamante ne euh, euh, mën naa am yow ñi ngay waxal manaam naa am xamuñu ko waaye soo waxee rek wàcc dana am ñoo xam ne xam nañ dëgg-dëgg lan mooy fanaaw man koo leeral bu baax a baax yow nag da nga ñëw ngir bëgg cee réeral nit ñi waaye xamoo ci dara ndax ku ne xam na ne fanaaw ay dara la am na fanaaul mahrifa fil maaruf am na fanaaw boo xam ne alxayaan fil maayin am na fanaaw boo xam ne talabul fil wujud loolu lépp nag doon loo xamante ne nii euh, jaam bi da koy def nit su fekkente ne bëgg na àgg ci yàlla subhanahu wa taala il faut mu jaar ci martaba yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax keroog bi nga xamante ne suñu borom subhanahu wa taala pour wane ne la la fanaaw duñ fa sax da nga fay jóge dem ci baqaaw te baqaaw nag fiha akmalu min xaalatil fanaa wa hiya xaalatu nabiyuna asalawatullahi wasalaamu alayhi wa xaalul kummali min atyaahihi wa li xaasa raa maa raa laylatul isra wal miraaj wa huwa saabitul qalbi yonte alayhi salaam bi mu defee al isra wal mihraj keroog dafa passé martabam fanaaw ndax bu ëggutoon ci baqaaw keroog du mën a dem ba sidratu muntaha ba lam fa gis lépp xolam mën a dal mu man ko attan léegi nag nit yàlla yi subhaanahu wa taala dañuy àgg foo xam ne soo fa àggul bëgg leen a siise bëgg leen a àtte ci boppam soo fa waxee da ngay daanu da ngay jaxase wax lu baree bari loo xam ne xamoo ko mbir mi soo ko xamul da ngay wane ne xamoo ko nga taxaw ñëw ci ñi ko xam ñu teg la ci yoon wi wala nga noppi ci maandu ci ñaareel ba mooy euh, ñu waxaat nga ay wax yu baree bari ngir euh, réeral ñu baree bari ndax boo demee ci sa mujjantal wax yaa ngi wax ne waaw Euh, ndax ñoom am na lu ñu indi ci wujudul xaq ak yëgu nur ndax dafa am ñu ñu tuddee ahlul istiqaama ak ahlul sayqi wal ihaat ñoom ñëpp ak seeni wax yow nag su fekkente ne da ngaa bokk ci ñi nga xam ne dañoo weddi da ngay wane ne man kat lii xaw ma ko ndax fi nga mës a dem xamoo ko dangay wane ne xamoo ko waaye xaw ma ko waaye kenn xamu ko waaw loolu waxi lan la man xaw ko waaye kenn xaw ma ko mus faa dem waaye kenn musu faa dem yow aggoo demoo demlu woo bàyyil ñi dem ñu dem waaye déw ma waaye kenn demut loolu nag yëfi naafiq la mu mel na que yow dangay faral di attewu di dugg ci bari ñu bari jàpp ne da ngaa xam tasaw da nga caa sóobu woon mën naa am soobu nga ti xamoom ndox kuy sóobum ndox day fekk nga xamul ndox boo xamutum ndox boo fa sóoboo da ngay lab da ngaa da ngay nangu kon buñ la xeetlee da ngay nangu ne da nga doon lap ñu di la xettali li ngay wax dara nga ci xamut réeral nit ñi rek ngay def ak naa fekk wane ne xam nga te xamoo dara lii lépp bay boo nga xamante ne lépp loo fi indi lu dëgg dañ koy weddi mënoo doon koo xamante ni loo fa soo doon dem juróom-ñaari asamaan it di xëyaat di ñëw fii soo waxee loo xam ne duggul suñu bopp dañ koy weddi ak koo mën a doon su ko defee réeral nga ñu baree bari ñoo xam ne dañuy jóg di yàpp ñoo xam ne ñoo leen man duñ seen morom deltul ginnaaw parce que li nga def du jëfi ab naa féq la ña fi jiitu woon ñoom ñoo ko def naa féq dong nga soo ko bàyyiwu nag lépp loo fi mën a indi danañ ko défendre bu dee alquran la gënoo ñu koo xam bu dee xadis yonte alayhi salaatu salaam bala maa dee nga naan ahlu sunna ahlu sunna fan ngay dem ci sunna fekk koo xam ne danaan fekk ay julit leen di génn ci lislaam di leen fii di leen weddi di leen xas di leen wax lu dëgg loolu naafiq yi donc doon dafay nekkoon madina doon woote woo julit kon nag bu jamono doxee ba am ku dellusiwaat naan man julit laa damay jàng alquran damay kii hadis fekk ay julit yu ko man raw ko ci diine mu di leen xas dañuy fàttale naafiq yi nekkoon biir madinatul munawara kon lii ngay def ñun jaaxaluñu ndax alquran waxoon nañu ko bu yàgg yonte bi sallallahu alayhi wa waxoon nañu ko bu yàgg mënoo fee wax dara loo xam ne dañ ko gëm Euh, naan da ngay woote da ngay ginde yow gindeekoo ku gindeekoo naka lay ginde say fi naa feq yi soo ko bàyyiwut loo mën a indi dañ koy radd sànni ko nële ndax ñi la man fuuf raw la jiitu la ci lef mi bañ dalee daw dawagoo ba noppi nga jóg naan lii nangam nangam nangam ñi nga xam dañoo woyof bopp dong ñoo lay topp waaye ñun duñ la topp mukk te mënoo fee andi luñ lay gëme kon lii mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ lay jotalaat incha allahu rabbi yeneen dina ñëwaat wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu